amin amin Aïcha gay gaay département de Kër Massar Sud en action VAD Waouh. Ah, serviettes sax après ñu ñu ut ko ah, les serviettes de Diomaye ah, après ñu ñu dinañ ko defar après tu m'envoies ça ok Aïcha let's go département de Kermoussar merci beaucoup jaajëf Actuellement, avec les VAD au niveau de Yembol Sud, avec la coalition Jamaï, nous sommes en train de continuer notre campagne. Voici Mr. Khalil. <laughs> Alors, la communication est là avec Ndumbelay. Donc, euh, on va sionner tout Tcharekao aujourd'hui parce qu'on a découper un peu le Sud euh, en zone, cinq zones, Afia. <laughs> Hein? Mohamed ne fais pour noy. romb campagne élection par force. par force <laughs> aja, aja waay mau ma dégg aye ah, ah, eh, non ndeysaan <laughs> yéen yéen ya daa dama ndànk yéen yen daf leen ndànk yéen koo len faral mais kan kan kan waaw dafal ndànk dama leen laaj ay question waaw dafa waaw xaara xaara xaar dama leen laaj ay question xam nga ay ngeen yéen kan moo mën a wax kan mooy sonko ci yéen. man sonko yéen waaw defal naa lu tax ngeen bëgg sonko yéen. ñun ñun sonko. sonko ah, mooy sonko ay góor te xam na ay bandi la. Hmm. xanaa sonko mooy joxe bandi moo tax. Eh, eh, sonko du joxe bandi. waaw eh, si ko sonko moo tax ñu bandi. léegal mooy léegal. mooy caare kaw ay saay saay lañ. waaw waxuma loolu de. yéen wuy ma. ku ngeen di votel yéen ku ngeen di votel. kon jeex na ayca. sonko rek la ñuy topp. salaamaaleykum. dëgg waaw na ngeen def ah t-shirt day jaay day jaay <laughs> wala problème mooy waaw te obligé de vendre tout waay non ñun nag wax dëgg yàlla dañu duñu dañu duñu duñu maye ay t-shirt dañuy jaay t-shirt salaamaaleykum dañuy jaay dañuy jaay ndeysaan waaye foo romb c'est neex mooy waaw sa sa BAD bi day day tax ga mooy ñun ñëpp da mais grand ba waa yéen a ngi waaj élection yi. bu baax a baax. a baax dina am. élection par force. amul leneen waaw waaw. waaw soxna si daa mel yow daa mel ni yow Pastef nga de. ah ba ba ba jëli ngeen carte yi. fu mu toll daal dañuy sensibiliser pour ngeen jëli ji carte yi élection yi le 25 la ñu waajal.

dafa mel ni VAD la ñuy def de. waaw waaw lii lu am am na solo. yàkkamti woon nañ ko lool lool sax. waaw waa ji ci tënkoon quoi. waaw mais dara. waaw doole moo mën dëgg quoi euh, safurla. waaw dëgg rek moom ci lépp. waaw waaw lu mu métti métti rek dëgg mooy mujjee. lépp ci dëgg lay mujjee. si incha allah rabbi saa yu quoi. alhamdulilah ñun pare nañ ko waaw ci amul dellu ginnaaw. jaajëf kii mooy grand Rossi bu caaree kaw ñëpp xam nañ ko. Vito ngi nii waaw ki mooy Vito bu Sonko nag. moom mooy ñu inspiré. waaw grand bi xanaa waaw waaw affaire yi dafa nekk combat boo xamante ne. waaw ñun du suñu bopp a tax ñuy xeex. exactement mais le peuple sénégalais. a dafa am loo xamante ne mënuñu ko dund ñaata at. waaw presque un siècle boo xam ne Sénégal mi ngi nekk di dund loo xamante ne. waaw ah, ah, ah. war nañ ko dépassé. gis nga fi mu toll nii toog muy dox yi. Sonko daal yàlla na ko yàlla defal jàmm. barke laa ilaa barke Seydina Muhammad. yàlla jox ko réew mi. xasali waaw waaw taxawal waaw xam nga ne Basir mooy Sonko waaw Basir Diomaye Faye xam naa ko moom la ñuy woote ah dañ ko bàyyi waay dañ ko bàyyi nag waaw waaw yow loo wax non dégguñu la dégguñu la loo wax nga ni lan mooy lan <laughs> yow tey nga de aljuma ñëpp ñëpp de ay wa ñu and ak suñu directrice de campagne tay fa fo ñu duggal ni ah tay kon ayca bismillah ma ngi ci ginaaw gaay kay kaay leen gars yi kaay naam ñu ñew fi. Eh, eh, <laughs> asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaw kii nu mu tënk maa. tey tey tey maa ñëw de. waaw mais grand grand bëgg naa de bëgg naa bëgg naa baax a baax a baax. waaw mais taxawaay rek. na ngeen tey. waay léppay baax fii mooy zone bi salaamaaleykum. grand bi maa ngi leen di ziar de na ngeen def eh mon ami maa ngi leen ziar. salaamaaleykum. grand bi na ngeen def da nga liggéey bi yéen a si jàmm. ama yéen a ngi ci ataay ji de waaw ah. tey coalition bi ñëw na tay coalition bi ñëwoon de belum ak madame le maire ah war na kon jeex kon kon kon jeex na. ni gënu du def dara lu No deug la barki yalla mu teg rek ndaysan ndaysan non yow borom baax nga be musu woon xam bas sa rakk la bas di la musuma xam ne sa non c'est mom c'est le cadet de la mu ngi ko sama dañ fay jaar duggal ñu eh gaale bi mu yow la ñom la yow koñ bi moom bu sonn yow léegi waaye koñ bi yow kon mën dem la non dem la Ah, ver... na baax rek waaw non non yow moom wala da nga positif. non ñun sax dañuy positif ñu ngi gis ni gars yi ba. corona bi ngeen def keroog. xam na non te je te te jeexul de dañ koy defaat waaw non jeexul. ñëpp a ngi wax ne ñu yéen ñaar yéen a ànd. day day am sax. non dinaa la pat y a pas de problème loolu maag maag maag Babacar. non non def baax na loolu waaw. gërëm <laughs>

Balla Diam ki ne man bu ma ma feneen non non non man maay ñëw man man maay ñëw maay ñëw jaajëf non problème mooy caare kaw fi yëpp Pastef yi problème mu fii moom nooy na quoi. moo ngi ñëw moo ngi ñëw. man de dinaa jaaxar naa dinaa ut ay tiset yoo xam dañ koy maye de waaw. ah ah ah ah ah. yaay kan. Ah, ah directrice école bi. amoon naa benn xarit bu fiy jàngale de waaye fàtt euh, kii waaye tur bi tam doon jógee station yëmbal. jigéen jigéen la. après muy sëy fii côté terrain bi. madame Diagne madame waaw. mais manque de temps. Mm. xam nga man man maa da nga fi ne di moo fi ne de waaw dëgg neexul waaw waaw waaw mais mais mais bàyyi ñu ñëw nag parce que yow yow personne ressource nga foog ñu toog waxtaan ak yow ndeysaan ba mu jeex ndeysaan du te du non il faut ñu ñëw kër ga incha allah fa ànd ak Fatou ñu fa incha merci madame incha allah def ba yéen ngi waajal campagne fay rek da naaf yoo koy ba jirilo jeex na <laughs> fii de salaamaaleykum ay góor sama gars yi de dañoo gaaw nag par bayado foog ngay toog waaw bàyyi ay empreinte taxaw Ah, am na ñoo am na ñoo am na ñoo xam ne. bu ah, waaw boo tax ma bëggoon nga jiitu ma. <laughs> c'est que Gilles boo ko toppee day tërëri di dem. <laughs> deux mille waaw ah, foo dëkk yow. yëmbal fan ci yëmbal. xanaa waa Pastef nga. wala ñoom nga àndal. ñan si ñële. non non non salaamaaleykum. na ngeen def waay yéen ci jàmm non marron bees moom amatul ci dëkk bi wax dëgg yàlla amatul ñu ngi làqatu sax ah waaw jëf waay ah Pastef rek boo Pastef rek ah <laughs> boobu nag moo dàqate boobu nag moo dàqate salaamaaleykum na ngeen def ana ana bas mu ngi fi eh, sa yaay ma dem ba seeti ko laaj ko barki Seydina Mohamed salaamaaleykum me wala maa dem ba seeti ko wóor na yàlla Ablaye Mbaye laa fekk jour boobu moo xool ko ma ne mu ne ma ne ko xàmme xàmmeetu ma ne yow mu ne ko ma dem Mbaye man mu triste nag mais yaa ngi jàmm kii moo ma jàngal ñoo bokkoon classe am na madame Mbaye mooy mooy jour ma ñëw sa kër naan la xaaral foofu laa jaaroon waaw ana bas mu ngi fi yéen mu ngi doog a ñëw daa tardé daa tardé mu ngi doog waaw d'accord incha allah waaw pourtant yàgg naa dem nga fa ah waaw damay live yow wuy ma Pastef nga bokk da ngay laqatu Pastef nga bokk kër gi yëpp Pastef lañ benn benn grand jiba rek mooy mooy mooy mooy APR non non Facebook la non pas APR dama juum Baara la moom Baara Gaye <laughs> waaw la de wax nga dëgg c'est que fii lépp dañuy cotiser loolu moo garaaw Pastef amul ay maye cotiser la maanaam dañuy cotiser dañuy jënd sax t-shirt yi ñuy sol non au delà de ça non xoolal c'est pas question de moyen de cest à on veut une gestion participative parce que réew pour mu dox il faut que ñëpp dugal ci seen loxo xam nga tay jii nii am na koo xam ne na ñëw jënd t-shirt yëpp maye ko mais sénégalais lu yomb da koy foowe <laughs> engagement engagement lañ bëgg mais yow eh dina la woo incha ok kon yaay fi ok waaw gaay ba sama gaay ba retri ngeen carte yi ngeen c'est sûr carte électeur yi laa wax de di wajal ba day anamu ga yow da mel ni danga may dor da mel ni aw aw aw salaamaaleykum yes yes yes yes hello guys soxna si noo def naka mu Pastef wala waaw waaw waaw waaw mais nag mais ba jëli nga carte sa carte électeur mu ngeeg yow affaire bi daal taxaw daas fanaanal 24 février affaire yi jeex jeex na kontaan nañ kontaan nañ waaw booy yaa ngi noonu waa GPS ñoom ils sont tellement déterminés waaw Ousmane nañu nee di joxoñ jomaay partout jaajëf waaw kii moom ñëpp xam nañ ko. waaw ah, gis na de. dynamique. moom oh a ngi ne la comme sama gars bi ñu ngi leen di bëggee de mais grand ba carte électeur yi jëlee nañ ko. carte électeur yi. ah fi ne. Ah, waaw waaw waaw moom. kon fii nooy na nepp kon jeex na moom moom moom daanaan la nag. ah kon jeex na kon fii kon ñun. waaw nante yi. waaw samay rapport la jeex na. jaajëf sama gars yi bëgg nañ leen ah muy guuna jaajëf waay bëgg salaamaaleykum jaajëf ah. yow fii donc gars yi message yi ñu mën a a joxe mooy dem leen ngeen récupérer carte yi loolu moo ci ëpp solo. dem leen ngeen récupérer carte parce que carte électeurs yi moo ñuy permettre ñu renverser situation bi quoi franchement waaw mais kii. <laughs> gaan gëj a gisee yaa ngi si jàmm na nga yi est que ñu ngi dugg ci kër yi gars yi est-ce que ñu ngi dugg ci kër yi non dañuy dugg ci kër yi waaw non xoolal c'est que Jules day tërëri rek te affaire yi foofu. Fatou Dione xoolal Souleymane nee ko mu def ndànk Souleymane. xoolal xoolal xoolal Souleymane ah ñoom ana ñu sax ñoom dañoo gaaw de man dama leen. parce que xoolal bu gaawee VAD kenn du ko defee nii da ngay da ngay marqué say apprenti non mais dafa yàkkamte rek. déedéet même amee ay patriote jaar fa ñu xam ne yaa ngi fi. bu à domicile, ne visite à domicile lan lañ eh kay lañu retenir leen sinon du baax visite à domicile kay c'est clair. Alors, à tous les patriotes du Sénégal, allez retirer vos cartes. C'est important. Eh Jules, c'est trop rapide, c'est trop rapide. Gai nenda. Suleiman, devagar, devagar. Rola, rola. Devagar. Passa. No, assalamu alaikum. Gai nenda. No, barra de, mas devagar. Ah? Well. Ok, mais, mais, mais est-ce que vous allez dans les maisons Parce que ñoom ne xoolal bu ko ñu def ndànk ndànk ndànk ah mais dafa gaaw dafa gaaw waaw bu dee waaw Fatou kaay leen parce que dama gis ni da dafa gaaw quoi man le temps may toog waa mère ba jëli nga carte yaay booy carte électeur bi mu ngi yow waaw taxawaay bi nag dafa am lu ko waral xam nga Macky Sall pare na yow mi ah yaw la yaay yaay maire ba nan ban yooyu lay la laa da jeex na maire kontaan naa ci yow jaajëf waaw jeex na <laughs> am na mbir yoo xam dañoo pare waaw on est avec le grand Jules moom ku ko xam moom ci wàllu en matière de électro <laughs> moom moom yëmbal sud moom ak Kër Massar ñëpp xam nañ ko si taxawaay bi quoi grand tey ma gis ngeen def ay VAD quoi franchement bon xam nga rek li ñuy wax euh, waaw fàttali dafa baax. waaw dañoo ñëwoon salaamaaleykum yaay booy. dañoo ñëwoon rek. waaw di fàttali askan wi. waaw comme par exemple waaw xoolal ne leen carte électeurs yi. waaw comme xam ne suñu élection yi. waaw jëm na le 25 février. ñu xaar ñee ñu ñëw waay. dafa dagg quoi ko mën a gagné. waaw donc ci cadre boobu nag lañ ñëw rek di sensibiliser nit ñi. ok pour ñu génne carte d'identité yi. ok waxtaan ak. gars yi carte électeurs yi aussi ah. comme ça ñu na. d' accord léegi comme voilà donc c' est léegi xam nga lu ah. comme par exemple bu ñëwee ci genre secteur yu mel nii 2 3 3 3 dañuy dugg ci ay kër ah noonu la ñuy def ah ok kon baax na baax na waaw. kër ñoom kër kër kër kiiwu Sonko fan la. weddu gaynde bi. fii la du du mbedd bi ah mbedd gaynde bi jabar jabar waaw waaw waaw gorob waaw. waaw léegi nu ñuy def yow nga ni ñun ñëpp dañuy def nii wala. waaw parce que waruñu tas aussi quoi. ay ayca gars yi kon ayca. non ñu bare nañ ñoom korka ñoo newoon si ginnaaw rek ba gis-gis bëri na. Ah, waaw nañ lañ dem benn kii woon. ñu ngi waaw. Ah. waaw. non non dañ ko defar dañu ut xaalis defar ko pour jaayaat ko quoi amali waaw non non non même du cest à bu nekk gars yi 500 lañ ci amaat dañ koy jëlaat sax defaraat ay t parce que am na ñun ñoo xam ne nii. non ko bëgg a yombal sax tey ji bu ñu amoon benn waaw waaw loolu la effectivement c'est-à-dire par exemple man dama ut benn xaalis def ko ci pour jaay ko. 1500 t-shirt bu nekk 1500 la ñu dugg xam nga mais dañ koy jaay am 500 bu ko ñu plus xam nga am na xam da ngay leen di may après exactement am na xam da leen di may quoi waaw xaar xaar dugg fii grand waaw salaamaaleykum mais ba carte électeur yi jot am ngeen ko jël ngeen carte carte Macky Sall wax ay mais day am de waaw waaw. na surtout ça waaw. am réew mi buy changé ñun ñoo koy changé. ba pare du ñooy changé réew mi. ba pare nag saa bu ñu wootee pour affaire réew mi na jëpp génn. surtout bàyyi leen toog seen kër rek topp ceeb yeeg. ak yu neex yooyu noonu day la génn. moo waral waaw waaw waaw. 19000 <laughs> francs li daan jot 11000. ñëpp bëgg mu dàq. wallaay boo leen bëggee waaw metti na. waaw léegi loolu mën nañ koo xeex mu jeex benn yoon. incha ni Macky Sall lii jeex na demal sa yoon doy na. waaw ay ayca kontaan nañ ci yéen ah. <laughs> fay la sant. <laughs> bu leen si xate ay gars yi allez retirer les cartes yaa ngi taf kër gi dugg ngeen fi ah kër gi dugg ngeen fi fii de amoon naa benn paa bu ma xam fii de yaakaar naa kër gële na kenn na ñëw ah am na ñu nekk fii salaamaaleykum yaay booy na ngeen def kii loolu moom dëgg la moom salaamaaleykum na ngeen def ana réel bi pare booy <laughs> maire noo def waa kër Sonko dañoo leen seet si moom ah, déet waay ah loolu neex na waa Sonko ngeen waa ba yor ngeen seen carte d'identité nag ak carte électeur téye ko bu baax de bu leen kenn nax waaw di xaar élection waaw beneen bi mooy maire bu méttee bu leen bàyyi xale yi rek di génn yéen ñëpp génn leen Sénégal affaire yi jeex déedéet bu ñu waxee mars sax dem taxaw rek ñëw leen sax ngeen taxaw bu jaree sax ñu woor ñun ñëpp mbir mi jeex benn yoon dañoo sonn ñu noppaluku dëkk bi baax ay waay Macky Sall la jël nañu ah nañu abal waay jërëjëf ñu xool keneen jeex na ndax ñu <laughs> dégg nga maire bi lu mu wax ceeb bi seer na waa léegi moo tax xoolal saa bu ñu wootee da ngeen a war a génn taxaw bu ñu mars ñëpp génn mbir baax kii Sonko nga ko tuddee ah ay ay Sonko daa Sonko ah kon xar mi Sonko la tudd ay waay macha allah gars yi kaay leen ziar waay Sonko la tudd ndeysaan xoolal lii rek waaw ñu ngi fii yëmbal sud département de Kër Massar. on est à yëmbal Sonko ñëwal ñu siyaar la rek. ana bracelet bi. eh woo gisuma woon gisuma woon bracelet bi. ay waay waay macha allah xoolal lii rek ñun daal Sonko. Sonko allah macha allah. macha allah. non yow moom wuy ma. ku sell ki yow toogal rek bul wax dara ku sell ki yow. xoolal rek ak brassard bi nag yaa pare nag yow. macha allah macha allah. ndeysaan ah ziar nañ la de kii daal foto leen ko ñu envoyé ko gars yi <laughs> yal na yàlla def ngeen am yu bare bare bare bare bare bare bare day sóob lay joué kane yow eh am nga carte d'identité kii nii am na 40. APR. maire muy ma maman nag muy ma eh du ma joxe dépense APR laa dégg ku fi APR fii. moom APR la. ñun bi dañoo bëgg nag yéen li koy soppe xam ngeen ko. waa Pastef fa koy jomaay jom kese la séeréer la. séeréer de. waa jeex jaamu tukulóor jaamu tukulóor <laughs> yow nga yow lan moo tax nga nekk APR yow yow ba léegi nii fier d'être de l'être la ñuy wax ma ni fier d'être fier de l'être la ñuy wax nga naan yow bàyyi ma yéen daal kontaan nañ ci yéen yàlla na fi yàlla Jomaay Fay xam nga waaye maire bi bëgg naa ko de yow bëgg naa la de xoolal xam nga usmaan Sonko xam nga Sonko Sonko ñun moom lañu ñu choisiroon Macky Sall ni ak dee Sonko du dem élection jëf tout ba téye ko def lu ko neex Sonko ni ko waa dew ma xaaral ma yebal sama rakk mu ñëw ànd ak ko mooy jomaay mii séeréer la nag waaye am na jom de am na taxawaay <laughs> yow tak <laughs> yàlla xam na ne dina yomb ndeysaan na la yàlla yombal problème donc voilà gars on est toujours à au niveau du Yambol Sud euh, dans le département de Kermessar. voilà avec les euh, visites à domicile Inch'Allah c'est la coalition et Sonko 2024 waaw am taxaway par rapport à euh, yaay boy neen ndef yéen ci benn xar lañ tuddee fële Sonko de takkal ko bracelet nag soxna si waa jël yaa ngi jàmm waa jël nga sa carte électeur lu tax looy xaar soxna si xam nga li xew si dëkk bi jamono ji enjeu yi jëli sa carte ak fi réew mi toll ñu bëgg a changé xanaa dëkk bi méttiwul si yow waa léegi dawal nga jël ci sa carte yaay boo yow tamit génn fan nga fan nga déposé woon ah génn na wa legui da da jël ko nga tëj ko ci armoire bu mu genn lu bari deng diko di parfum baye ko noonu ba pare na xolal sunu candidat bi lañ doon présenter xam nga ko. kii mooy Diomaye Sonko Ousmane Sonko. Sonko mi nak moñu ni moñu joxon jomay fay jomay fay mi ni rak la ci Sonko bu ne rak la manam ñom ñaar ñoy and bokk gëm-gëm bokk gis-gis té liñu taxajuk ñun ñi ñu dara lu dul soppi li nga xamni mo fi nek mooy senegal bu naqare bii nga xam ne nit ñi sonn nañ nit ñi fatigué nañ da ngay liggéey ba sonn doo am dara tey ci loolu la ñu bëgg a rey suñu bopp léegi nag ñun ay anamu kooku anam cité gàddaay kooku nee ñun ñu ngi fii nii di ko xaar ñu bëgg nañ ko bu baax ñu ngi yëmbal fii dégg nga pour jàppale sa rakk jàpp bu ko tooñ muy ma sa rakk dafa nekk ci dëgg bu ko tooñ ci dëgg la ne xoolal affaire bi taxawaay la rek xam nga li ma la wax ba pare wuy ma réew mi xoolal ñun moomuñu ko ñun ñëpp a ko bokk pour mu changer il ñun ñëpp ñu teg ci suñu loxo xam nga li ma la nañu fonk ay voté am taxawaay xam fi ñuy taxaw bu ko defee fii ak cinq ans yi di ñëw réew mi changé kontaan naa ci ci ci ci temps bi nga ma may de dégg nga yow nag jël nga sa carte électeur yaw ñaataan nga am très 17 ans non yow ma dem waaw mais waaw mais jantal grand yi yaa ngi ci kaw naka tey kon koñ bii la

18 ans ngeen am. yow yow ñaata at ngeen am. ñaata at ngeen am ah 17 ans mën nga am 40 ans. déedéet ça dépend ça dépend ça dépend. mais yomb na mais non mais mais pour nga voter foog nga am ans pour nga mën a voter foog nga am 18 ans. no mën nañ non bi élection yi di ñëw rek c'est c'est c'est. day gën a. waaw mais élection bi maanaam moment bi ñuy def révision bi passé. bobu c'était avant moment bobu ngeen ko waron def changer mais bo len baye ba heure bi do len voter ñu pas son ko voter ñu na a voté. ku la ko wax yow. waaw non defal na so non non xaaral xaaral salaamaaleykum kan mo la ko wax. dama ka dégg do ban classe ngay def. wa do informé wu. defo sepp yow ngay maire ki di maire. Eh, non mais même yeen da ngeen wara xam même bu fekkee sax voter wolen da wara faire voter wala vingt cinq mais yéen li ngeen war a def mooy eh, déjà xam nga xam nga déjà xam la mo graw wa waaw salaamaaleykum euh, yow ay anniversaire ngay ah son jour anniversaire xam la mo am solo bu len japp ni yéen bokkoo leen si dëkk bi ci dëkk bi ngeen bok vous êtes des jeunes au-delà de Pastef vous êtes des jeunes vous êtes yéen la base de développement de cette nation ce que vous devez savoir moy

wala ay théorème de Pythagore parce que ñooñu dañu don xalat xalaat sen xel def dara biñu démé ba légui des ñaata siècle ñu ngi leen di ñu ngi leen di tudd bugo bo par exemple jugee fi yalla na yeex ñu lay tudd ci lu baax kon da ngeen di am njariñ pour sen dëkk être des patriotes kon c'est très important aw carte pour voter mais damay wax sama yaay ah yaay orientation yi nii la affaire yi nii la demee quoi xam nga li ma la foofu lañ toll réew mi dañoo bëgg mu baax ba yéen ngeen am njàng mu baax boo leen jàngee ba pare ngeen am liggéey yu baax dëgg yàlla tamit bëggu leen lool. Ah, après naa ko mais ñaata ngay sol yow. yii yaa ma gën yow chose di 45 la. 40 waaw yi dina la jot amul problème da bëgg amul problème waaw après su ma ko utal ma ay carax <laughs> alors.

maa ngi jaar gaan tey dugg nañ sa koñ de waaw mais noonu waaw mais noonu waaw waaw waaw waaw jël moom rek li moom moom mooy loolu waaw waaw gars yi kii sama sama gain la il est de l'APR mais c'est nami ami pot un pote waa ju jàmbaare doo ko dégg dara ci ay nag wax dëgg yàlla ki mu faral lay faral mais genre politique yi nii moo neex quoi fu ñu daje ma ak moom shawdaat wax lu baax lu ñaaw day mel ni sama bopp laa ko wax. exact parce que këram këru góoram laa la si année tamit. ok ndeysaan c'est vrai c'est vrai mu ngi fii mu ngi fii mu ngi fii ndeysaan waaw waaw waaw waaw waaw waaw c'est affaire famille waay waay mais sa papa waay après xam nga da ngay so waaye bu gisee Fafa ma man man man laal ñeneen ñi sax ñu a Fafa non non dëgg la dëgg la loolu moom dëgg la waaw waaw waaw loolu moom dëgg la waaw mais bro kontaan nañ yàlla yàlla def taw feex waaw day baax day baax mais kontaan naa de mais fii mooy gàlle bi ah, waaw amul problème yow damay ñëw ziar sa te moo pot gain le grand buteur merci beaucoup ah jaajëf ah, <laughs> ah jënd nga ah, Ibrahima jaajëf merci ah ah Pastef la Ibrahima a jëlal sama numéro bi daal dugal si groupe bi. ah si groupe bi <laughs> baal ma dugal ko ci bi ndax baal baal baal léegi ma rek après. Eh, eh, booy sa yow sa waa kër lay jël après yow yow yow ma lay seet si. yow eh yow dama lay yow dama lay jël si. Euh, Mansa yow booy dama lay jël si. yow dama lay jël si parce que yow fii nga bokk. barki yàlla dama lay jël yow xam nga ma la wax non dama lay jël merci waay Je si Macky Sall bi ay waay yor ma disatu Macky Sall c'est très important li ñuy def sensibiliser permettre aux gens de leur dire par exemple fi affaire yi toll bañ ñu décourager ci dara wala genre fii amul décourager lu ñu nangam élection day am par la force parce que problème bi moy aussi tamit le calendrier républicain dañ ko wara respecter parce que baye Macky Sall momul niti xam nga mandaam na dem ñu def ay élection Diomaye fay gagné ko ci gagné yu gaaw Sénégal jëm kanam salaamaaleykum waa Sonko na ngeen def yéen si ah yeen wa ñan ngeen yeen ah wa ah man da yow rek lay top yow mais nak defal nak ba carte carte électeur yi jël ngeen ko non yow amu ko quarante treize am treize ans kii ndaw rek de am na dix-huit ans naka bu gaay ay directeur ba yaa ngi waaj non ba waaw non ni fii nii ah, bi sa doom la ah, ah eh, grand naka mu salaamaaleykum kon yow grand bi mooy sa papa. ana mu non bàyyi bàyyi ma dem fee bàyyi ma dem siyaar ko loolu kay. waaye gis nga de ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci waaj def nañ ensemble wàcc def nañ ñu nag gars yi pur mais affaire bu nice quoi salaamaaleykum grand bi ah ah, ¿eh? ah, ¿eh? ah grand ah, maa la siyaar de. na koy tey. ah man grand bi mu ni ma. ah waaye loolu moom macha allah. te moom mii da ngay gis ne moom mii mag la. déet waay kii soo ko leen waay waay waay waay waay non noonu la mën a demee kenn. mais ñu lay bëggee de mais lépp taw bi rek. waaw jàpp rek taw bàyyi. grand bi dëgg yàlla moo ñu tete fële mairie ba quoi waaw sunu grand la wax dëgg yàlla. am taxawaay dëgg dëgg ah waaw ñu ngi ci ko am man grand Cheikh Mbour moo ma njëkk njëkk a solal ci affaire ci affaire politique. ay Ibrahima Fall. oui mais lépp jàmm ah. ah mooy Diop. ah fii nii wax dëgg waaw ah, mais gars yi jaajëf. Ah. xewal waaw non mais loolu la man booy da ngay dugg gars yi kenn ni la non. man moom fii laa mais booy bi passé fii quoi mais noonu la affaire yi. noonu la quoi affaire yi euh, ki nekk Allemagne. ki nekk Allemagne waaw. kële ay professeurs <laughs> fan mooy këram. Sambou waaw mi ngi Maris mi ngi fële léegi sama kër sama kër grand a fële. Euh, Maris euh, non non fii Thiara Azur. la ah, waaw waaw c'est ça fële moom ah, nga dëgg de waaw loolu non bien sûr ah fii nii ah si zone bi waaw mais gars yéen zone bi yéen ko bokk ak ñoom gars ko quoi oui waaw moom moom moom mos fi ñëw benn mos fi ñëw quoi bi doom ji gaañoo quoi. waaw moom dëgg la. <laughs> eh grand bu wax dara eh kontaan naa jaajëf jaajëf. salaamaaleykum. na ngeen def waay yéen ba yéen ngi waaj élection yi. yéen waaj bu baax a ba jël ngeen carte électeur yi kon daas leen fanaanal dégg jaajëf waay grand bi neen def salaamaaleykum neen def Sonko mu ndaw anamu anamu Sonko nam naa la Sonko nam naa la Sonko Sonko Sonko ay sànq dem nañ fole benn ju ñu tuddee ko Sonko ba takkal ko bracelet. Eh, Diomaye da ngeen am ab Diomaye tamit. Eh, eh, yéen kër gi yéen kër gi bëgg naa leen de Diomaye. aywa anamu waaw day guddee waaj mais garaawul après dañ ci bàyyi suñu numéro. pour bu ñu bëggee jot après quoi. affaire waaw bi mu demee ba parrainage affaire waaw pour def parrainage ah déet waay ay waay ay waay macha allah denc rek denc rek ah ah jaajëf waay waaw non non ñii moom ñii moom xam naa ne. xam na dara yaakaar nañu si laaj. waaw non génne ko waaw nga génne mu gaaw. ndeysaan. jant eh, jant grand. nga gisee. Eh. <laughs> waaw dañuy kii rek. mais bi nga daal gaan na nga dóori. mais yaa ci kaw na nga dóori lépp taw féex. jaajëf gis nañ taxawaay bi de jàpp rek coow bàyyi. <laughs> waaw. ñun ñuy wuy ma yëmbal sud yëpp lañ dëkk waaw mais ah saa boo leen bëggee mais moom eh, dinaa fi bàyyi sama numéro ana Jomaay oh Jomaay ngi kii gàll Sonko ay Sonko ngi nii allah ay Sonko oh xoolal lii rek xoolal xoolal ay waay kayit ba jox ko jox kayit bi lay xool ndeysaan gis ngeen gars yi xar bi Sonko luñ ko tuddee ndeysaan turandoom xoolal lii rek waaw Sonko macha allah yàlla na dund waaw ba ba ba turandoom ñëw ko nag incha allah ñëw président ñëw seet si ko fii te loolu day am ah ñu jox ko benn la ah fooy non bàyyi ko Sonko xar bi daa rafet mën nañ fi bàyyi suñu rek bu ko après moom ñu jokkoo ak am na ay élèves. waaw xaaral ñu gis naa gis naa ko de. mais moom est-ce que duñ ko jox après duñ. nee na ko bandum eh, nee na ko bandam eh, eh, amu fi de. nee na ko bandum ngeen non Sonko day xeex lool. Sonko dañuy xeex lool. ñun amuñu. sa waay la ñuy xaar mu ñëw ñu jox ko 5 17. non non non non sa waay la ñuy xaar mu ñëw ñu jox ko 5 17. mu mu waaw waaw waaw. woo téléphone di nga am 17 ba am fulaar fulaar sax di nga ko am. ah mu ngi génn. tukulóor Sonko. waaw daf may jox kii. Sadik la de. moom laa jox benn kii. kooku dafa Sadik de. xam naa ko fii dañ ko wax. non non benn affaire de. kenn amut kenn amatu fi secteur. waaw waa Sonko yéen na def bëgg nañ leen waaw nooy na ne ah <laughs> waaw foofu nooy na foofu gars ñëw ah waaw non non non non c'est que loo leen lii nii premier jour visibilité la après dañuy jëndaat jox nit ñi li visibilité la rek. non non non non sa waay sa waay ngi ne sax di ñëw. tukulóor Sonko muy noonu di ñëw. ah dugg nañ fi ah. dugg nañ foofu si. yow am nga carte électeur. ah xam nga Ousmane Sonko. xam nga Diomaye. koy votel yow. koy votel ah, koy votel ah waaye ah, gëm naa fekkoon dina leen waxloo bi ah neex na dégg nañ Paa bi dëkk fii Sonko rek la bëgg <laughs> ah? naa Paa bi Sonko la bëgg anam ko fee fekk de. ziar ko quoi jaajëf ah Paa bi <laughs> ko fee fekk de ndeysaan. non waxtaan ak moom. non suba day day dañuy ciwaat dañuy lambatiwaat. xanaa xamoo gars yi dañ comprendre ni VAD xanaa xamoo lu muy gën a guddi. muy gën a baax nit ñi heure boobu la ñuy génn. non non du loolu de c'est que yéen seen groupe lañ koy yéex a jàllale. mais depuis démb ba léegi. non non non wax naa ko wax naa ko dama dama dugal fële. petit nee naa ko dugal ma foofu bu ko defee information di gaaw a jàll quoi si euh, groupe bi wax tamit dafa bëri de groupe da da ngay wax affaire bi xoolal il faut par exemple xam nga la saa il faut am kenn koo xam ne day diriger les débats di waxtaan bi waaw non début début bi gars yi dañ doon waxtaan yi pare tëdd mais loolu nag xoolal jamono ji lañu war a gën a dëgër ah, parce que li Macky Sall di wax noonu intéressé wuñ sax waaw waaw parce que ngi nii sama gars ah waaw madame le maire madame le maire namu naa leen yéen a ci jàmm jaajëf ah Fatou fu ñuy dem pourtant yu lu baree fa ne nag xam naa booy bi ak premier jour beeg yooyu noonu quoi jaajëf waay bëgg nañ waaw lu am solo la ba pare problème mooy yéen zone bii nii ah numéro yi yéen jël surtout yenn gars yi di leen dugal si groupe bi. parce que parce que ñoo leen di permettre. Ah, ñu nekk ay relais ah, mooy gën a gaaw sax. ñoom xam nga kër gi moom ma récupéré numéro bi. bu ko defee moom après jeex na. Eh, eh wàcc leen tali. ba jël nga sa carte électeur. non sa waay da ngay rek xam ni moom Sonko la moom. naka mu ba jël nga sa carte électeur rek yaa ngi waaj. jeex é na da nga koy proposé. waaw ko ñëw ñu enseigné ko sëriñ def ko responsable. waaw d' accord d' accord d' accord. yoroon na doon na limité. waaw ça veut dire que du é, ñàkk ne am naa waaw eh bro. tur bi nan la. Abdoulaye fii gars yi xam naa ne certainement bëri nañ côté bi ah. waaw. te yëpp ay léegi xam nga dafa peut-être après. dañuy jéem am na benn cellule bu nekk fii caare kaw. mais yow fii nii mën nañ ci def benn kii boo xam ne après ngeen piloté ko. ah taay ok. su ko defee ñu mën a ajouté ñeneen ci des. bu duggee ba la bu duggee rek ah waaw am na dara la. kaay kaay kaay andi kaay kaay andi 17. eh patriote yow doo jënd 17 patriote doo jënd 17 ah jënd nga ah <laughs> Eh, <laughs> ma xool. non eh kii jënd na bu yàgg. allah. ok eh, eh, ah macha allah yow yow yow yow. kii ta kii taalibe imam Ndao la. imam Ndao la. <laughs> merci beaucoup ah tur la. Aliou ah Mass jaajëf Aliou. ayca gars lu muy gën a gaaw rek. moom moom mooy moom mooy moom mooy coordonnateur cellule buun waaw ndaanaan la nag ñu def liggéey bu am solo ci sensibilisation ala kulli xaal waaw rek waaw waaw waaw waaw ayca gars yi ayca ayca ah veer waaye xaalis amul dëkk bi dëgër Macky Sall dëgëral dëgg ah c'est bon fële ah da jeexal. ay booy kër gi yëpp ay patriote la. jaay <laughs> jaay la kër gi ah. waa ji nekk yow jërëjëf dañ lay ah. yi mën nañu fi bàyyi ah. waaw yi waaw. léegi après ñun dañ jéem a xool ñu la ajouté yow mën nga ajouté ñeneen. Ah, <laughs> ah Badou. <laughs> macha allah parce que après day baax sax ak l'exécution déjà fii benn centre la. waaw. déjà fii centre la quoi. yéen ko géré kon. nga defee link bi après. waaw waaw incha allah jaajëf frère wa merci beaucoup. madame la maire ngi di doog a ñëw waaw terrain gis nga de tey de waaw noonu la affaire bi bayaade bayaade gars yi dañu comprendre lu muy gën a guddi nit ñi heure la ñuy wàcc voilà uh-huh.

daa sonn xanaa wóor waaw eh eh, eh. jëndal leen ko eh xaaral ñu jëndal ko mu dog déedéet <laughs> ana koor ka kaay nga jëndal ko ndogu yii non non bàyyi ko kaay ndogu fii léegi ah ñu taf liir wépp ayca gaay ayca ayca. waaye bi tamit. balla ah mu ngi ci biir ah. ah patriote ah da amoon benn groupe. mais am ngeen groupe whatsapp. waaw mais gis nga gis nga gàlle bee ne bi ñu foofu tamit ay patriote rek ñoo fa nekk parce que gàlle boobu. après xam nga da ngeen def benn link fii bu ko defee après fi ñu taxawal leen benn cellule. xam nga ngeen am seen groupe whatsapp.

ça dañu doon doon woon gis. c'est vrai waaw. nga Kaolack sama koñ ah. Mhm. amul benn représentant wax ni. booy si man am na ñu ma xam. dafa ne ëpp na trois cent et quelques. man am na ñu ma xam yow léegi xam nañu def. danaa ut benn numéro parce que am naa xam naa coordonnateur foofu. Mhm. ma jox leen ñu jéem a xool ñooñu lan lañ dem ba man dama fa dem mobiliser ko mbooloo xam ne kenn xamul nu toll. non non non loolu il faut loolu il faut ko. Ah, parce yëpp fi ne nii dañuy xaar. non sax parce que problème mooy daf ci am ay booy yu bëri ñu yokku mais duñu xam li nga wax dëgg la te loolu wax nga dëgg c'est c'est mal quoi il faut ñu essayer regrouper leen man dinaa am naa bi demoon naa Kaolack temps yee demoon naa gis benn section mooy gars yi gaañu woon et tout ça waaw waaw a récupérer seen numéro ma ma mettre leen en rapport quoi bu ko defee yow nga jéem leen biir ndar gu ndaw foofu ah. dëgg la dañoo bëri ñëpp ci Ousmane la ci sax normalement foofu waroon nga mën a dem organiser dama bëggoon samp dama bëggoon samp cellule foofu samp foofu benn kii ah. na ku fa nekk ku jege ku taxaw waaw waaw nga ñëw jël mu loolu si loolu mën a nekk bàyyil après man dinaa dinaa dox la rappelé ma ko rek yow incha allah gars yéen a ngi ah, amul dox rek il faut ñu dugg ah eh xaar ma wax korko léegi mu dafa eh korko ana korko korko eh kaay ko mu jox ko mu lu mu lekk daa daa waroon la ilaha illa boo paree na ñaanal ñu ñun ñëpp waaw waaw waaw wooteel wooteel wooteel ñu ngi ñu ngi mbedd gaynde mbedd gaynde ah. nga bëgg a jënd t-shirt. 1000 eh, eh, eh, ndu kaay. non yow booy sama yaram daaw na nag de non non noonu non yow uy ma am. dinaa la jox yow yaa jënd tiset kaay kaay pourquoi nga jënd tiset dangaa bëgg Sonko ah booy lii touché nañu de bi moo indi 1000 francs am léegi nii nii dafa bëgg a jënd tiset mais bii dina la jot dégg incha allah balaa ngay màgg Sonko dina yor réew mi 2000 affaire dina gën a taxaw dégg nga kontaan noo tudd kaay noo tudd yow Rama foo dëkk ah ah Issa Diop nga dëkk. waaw fan si studio. yëmbal studio bële tali bi waru ko tàmbi. nga ñëw andi sa xaalis pour jënd. non non non sax affaire yi sax maa touché quoi booy seen morom de moo indi 1000 francs léegi jënd t-shirt nii yaa zal jalal wal ikram non lii moom après ñu dolli ci beneen 1000 francs <laughs> parce que sama yaram bi day taw instant yi xaw ma sax lan laa war a benn xale moo indi 1000 francs jënd t-shirt jënd t-shirt billaahi nee na si yoolu dëkk loolu moo xamoo yóbbu sama bopp bi waaw mu mu ñëw foofu waaw d'accord waaw naka naka nee mu woo ko wax ko loolu. bàyyi yoroo yoroo oto ah. waaw ah ah, ah waaw ñun la de ko ko kookal la tukulóoru <laughs> jeex na <laughs> gaa yow tee naa la <laughs> mooy yor dara dimbali leen mais askan bi nekk en place moom la nekk il faut ngeen jàppale ni bëtal ñu waa lii kan mooy xale bu ndaw du xale de non wala li may waxatee gi nii doo laaj yow waaw defal naa kaay lan mooy yow lan mooy gone non non foog non non directeur directeur directeur bàyyi nga xam nga waaye ah, yow yow Diomaye ay waay déet waay mama ndeysaan foo leen dëkk ndeysaan xoolal loolu kontaan naa de